ñeenteelu ponk ngëm mooy gëm yonente dañuy gëm ne ñoom ay jaamu yàlla lañ kenn du leen jaamu ay yonent lañ tamit waaye kenn du leen weddi alayhimu salaatu wasalaam ni yàlla daf leen yónni mu wax ak ñoom waaye tamit mu dëgër la leen ci ay lay yonente yooyu le kóllëre bi leen yàlla joxoon joxe nañ ko bu mat sëkk laay nañu biir xeet bi jottali nañ tamit waaye jaayante nañ ci yàlla dëgg-dëgg jaayante dañuy gëm mbooleem yonente alayhim wasalaatu wasalaam ak yàlla lum ñu xamal ci ñenn ci ñoom ci seeni ay tur ak seeni ay melokaan ak firnde nga xamante ne yàlla jox na leen ko ngir dëgëral yooni bi mu leen yónni ak lu mu xibaare seen mbir dañuy gëm ni yonent nabi bu njëkk mooy aadam alayhi salaam rasul bu njëkk mooy nuux alayhi salaam waaye ka tëb ka tëj nubuwa ak risaala mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ko woote woo nubuwa wala ras wala risaala gannaaw faat yonte bi sallallahu alayhi wa kooku waxu dëgg waaye tamit yéeféer na yéeféer bu mag keesul sikk sakk ci loolu le la gën a néew ngir yàlla dafa tëj lii di nubuwa ak risaala ci yoon bi mu yónni yonte yàlla bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam aalam